mbay am foofu muy Leewtoo di Lutte TV tey ñu ngi hôtel Les Ambassades Parcelles Assainies ak Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production yëpp Fallou tey dîner de gala ci weeru koor maa ngi lay ziar. Babacar ñu ngi lay fay bu baax a baax di la ziar di la màggal di la jox sa wàccuwaay bu baax tamit. lu waral Fallou tey mu ñëw def jataay bu mel nii lu ko waral ak lu fa luy waajal. waaw dañuy waaj rek lu am solo di nuyu sénégalais yëpp di leen balu àq ci weeru koor bu sell bi ñu nekk di leen balu bu baax a baax di wax ne boo gisee tey ñu def lu mel nii comme chaque année dañ doon mbébét di def ay ndogu yoo xamante ne ay xiwal la ne ci weeru koor pour joxe ko bon waa Ndiaye production staff bi ku mel ni ñoom dafa am beeg Malick Balde ñoom laaj yande mi vraiment xalaate ko noo xamante ne ah ba waruñu def dîner de gala boo xam te ni dañ ci woo ñëpp def ko fenn ñu ne ah amul problème ñu waxtaan ci vraiment staff bi rafetlu ko d'accord ci moo waral tey ñu mën a ñëw teew fii organiser lu mel nii te jàpp nañ ne tey buñ koy def tamit social la boo déggee ma ne social la weeru koor la yaakaar naa invité nit ñi invité say xarit invité say am na jàmm ñu ñëw ndogandoo vraiment reerandoo defandoo lépp yaakaar naa sant yàlla la ak daal ñu ngi sant ñi fi nekk ñëpp assistance bi yëpp bàyyi ñu kenn waaw pour l'instant ñu ngi jëm le 9 incha allahu rabbi muy nekk komba Kewel ak Mourdia muy combat bu solo dab ak ki nga xamante ne nii mooy caatu yaraax andi ci agago ak Nokia Bawal bugaan ak euh, source buus ay combat yu am solo si ñoom ñëpp vraiment booy yi ci war a bëri bari na yaakaar naa muy combat bu am sor bu am solo ci ñun nag combat am na ni yaakaar naa ci lañ joxe suukaru ci lañ joxe ndéwénal bu neexee yàlla waaw loolu mu ngi jëm Iba Mar Diop bu neexee yàlla le neuf le neuf incha allah waaw mais mënuñoo ma ñu nuyu suñu xarit Michael Fora luñ nekk mu ko ca di sonn ci ñun bu baax ba baax di nuyu suñu père baabu sama rakk bu jigéen Jeena ba Ndiaye sama rakk moom it waaw ñëw teew ñëw teew waaw yaa jëmal bis bi kon duñ def lu du leen sant du leen gërëm buñ jógee foofu tamit ñu ngi jëm le le 27 juillet ci combat bu am solo muy Gora Sock ak nga xam ne mooy Tyson 2 buñ jógee ci Gora Sock Tyson 2 dañuy indi ku Mama Lamine Jokkel Farouz doomu dàngu euh, Franc Nguer bu sap yaakaar naa combat yooyu yaakaar naa buñ ko présenté rek nit ñi war nañoo xam ne tey am na fu nga xam ne fa lañ a jëm te am na loo xam ne ñu ngi am beneen journée boo xam ñu ngi ko yeneen combat ñu ngi koy mébét pour dóor ci yoo xam ne toll na ni combat yooyu bu neexee yàlla lay fay bu baax. Kewel Modou su ma la ko waxee looy wax. waaw sant yàlla rek sant yàlla bu baax neex lool comme fi mu jaar rek. waaw waaw ak Modou Dia xam nga ki ngay bëreel. xam naa ko bu baax. xam naa ko bu sûr man du ma jël mbër xaw ma ko. loolu ay wax la rek waaw. xam naa ko bu baax. soo ne xam nga ko da nga ko xam ci mën a bëree wala da ko xam ci mën a xeex wala ci lan. non xam naa ko ci lépp li mu yëngu si lam ji li lu mu xalaat ne moom lay def ci lam ji rek xam naa ko ci moom. waaw est-ce que yow seen diggante xalaat nga mu yomb ci yow. non ça dépend man moom bëgguma bëgguma sax lu yomb moom. waaw ndam daal laay ñaan moom. waaw mais moo de moom man mënuma teg lu ma attanut man. waaw. am na ñuy wax nan mu Dia est-ce que dàqul bëre kéwél yow loolu loo ciy wax. ah loolu ñooñu xëy na seen xalaat a demee noonu rek. waaw mais man li may li may entraîné di ko kii indi loolu laa gëm man. Mhm. Babacar ci loo ne. sant bu baax alhamdulilah. sa manager ngi toog de Matar Ndiaye jox la euh, kéwél lim la jox neex na neexul. sama manager papa neex na. sa part kéwél lool. lu neex ci kéwél. dama koy daan rek ka ci neex. kattan mu jël loolu yombul. incha allahu rabi dama koy daan. <laughs> telli ji kay day dal moom. Hmm. telli loxo wala telli jël. déggoo bi la nekk visé naa ba gis ko telli day dal. rëbb naa ba gis kay. day gaawal wala day yéex. si kattanu yàlla lu mu bëgga rek man pare naa pour loolu mais daan kay damay daan su ma la laajoon ndax am na looy moytu ci moom loo may wax. xam nga làmb li may moytu du ma ko wax li may def du ma ko wax mais maa ngi waajal sama bopp daal. mbër am na looy moytu ci moom. mbër mu may dajal si àdduna dama lay jox sa cër. parce que nangu euh, nangul nit ki ndaanaanam dina dina wàññi ay defet quoi. kéwél ndaanaan la kon. bu mag. mais man maay super ndaanaan. Mbaye Faye. am nga jàmm am naa jàmm bu baax. tey Fallou Ndiaye woo fii ci dîner de gala. looy wax Fallou. non dañ suy kontaan rek dañ suy kontaan bu baax. woo bi munoo am na solo surtout maa si koor gi nu ñëw ndogof dañ suy kontaan bu baax. buñ ne Tyson de Gora Sock mu mel ni moom ne na moom wax na ma ne moo la doon laaj. moom moo bëgg na bëri ak yow te dafa xam ne man la moo tax mu lay laaj. non bu waxee loolu xam nga ne loolu waxi làmba rek yow bu ne góor ak man ma moo tax di ma xam nga ne loolu waxi làmba la rek ku xool samay combat xool li may bëree nga ne man la rek yow mi sax doo ko gëm. kon moom xeex bi muy woote parce que dafa jàpp ne da ngeen di xeex. moom làmba lu mu laaj rek bu dee xeex dinañu xeex bu dee bëre dinañu bëre bu soobee yàlla lu mu laaj rek. Tyson da am na lu muy moytu ci góor a soog. déedéet aw ma dara loo xamante ne dama koy métti si Gora Sock gisuma ko. Mm. nee tamit 3-0 lay doon ci diggante Tay Shinger ak Parcelles ren. si diggante Tay Shinger. 3-0 la wax nee na moom 3-0 la ñuy def parce que daan nee na moom mu daan Franc daan. moom na lijjanti combat am rek. Mm-hmm. bu fekkee loolu mooy yàlla dinañ si xam dara moom na lijjanti combat am rek ñun ñaan yàlla may nu ndam ndam lu seeri guy dañu koy ñaan yàlla mu def ko. seen combat mën naa gaaw. man na na gaaw man na yi combat bi lu mu laaj rek man nekkuma fii di nekk fii di xam nga pasar hmm, lu mu laaj rek bu soobee yàlla dinaa ko def hmm, bu soobee yàlla moom pokaar yi moom dinañ ñëw ñi ñu daan ñëwee ni nga ko doon waxee fële Fatick bu soobee yàlla dina ñëw bu gën a pire bi sax. bëgg naa la. Babacar fay. tey sa ndongi ne laaj naa ko. góor na 3-0 ngeen leen di yow yaa ne ngeen leen def mu ne yow na nga lijjanti sa ngay lijjanti mbiri jàmbur. waaw lijjanti sama bopp mooy maamu ñu war a bëri le 27 juillet li may wax sama si le 27 juillet laay xaar man incha allah ma wàcce leen waaw. tey seen demee ndax wàcce ko yomb na. yomb na si man de xaw ma nag incha rabbi le 27 laay xaar rek na nga xam ma ko war a wàcce ma waruma ko wàcce. ngay dëggal joguma si man doomu parcelle la 3-0 laay ñaan yàlla ko yàlla daf te 3-0 incha allah waaw. combat bi dóor mu daan man na ci am. man damay xeex loolu joguma si man bëre ma damay xeex rabbi dama bëgg a xeex ak moom waaw. xam nga mag nag mag nag xel bi dafa neex dem nga dóor ko benn gauche droite di ñëw mujj yoog yow. waaw mais yooyu yëpp ñu ngi koy suur <laughs> waaw bëgg Babacar ziar waaw maa lay fay comme maa lay <laughs> Lamine Gueye ngi di leen wax baal leen ma ak yàlla nañu yàlla boole jégal maa ngi ñëpp di sant ñëpp waaw wax dëgg yàlla initiative bi initiative bu nice la ñu koy rafetlu bu baax a baax. Franc dama ko gis biig parcelle laa ko gis ci émission bu nu enregistré maag Lamine Franc mu ne yow boo amoon ñu lay xelal doo jël combat doo ma yow. Franc mooy kan xanaa du moo ko wax kay wax ko ko moom. waaw dama ne Franc yow ci xanaa doo ah. man grand combat bi war kon lan moo tax muy jël sama combat. loolooy question loolooy wax ji loolu kay yaa ko ciy tontu. waaw léegi yow Franc dama bëgg nga laaj ma kon nga wax sénégalais yi kon yow lan moo tax nga jël sama combat loolu laa koy yóbbal aw ma lenn lu may tontu ci loolu nee na moom combat bu ko jëlee dafa rus kon lan moo tax mu am accès jël sama komba est-ce que wax du ne muy dox di bëri ay mbapat te gisul ngay bëri mbapat ak yooyu lay wax moo tax muy wax wala. mbapat ak lamb duñu benn. te le 27 lay xam ne làmb ak mbapat duñu benn wax ji jarul muy bëree nañu wax lu tuuti jëf lu jëf lu bari loolu moo solo ko ñoom nañ dañ leen di dóor 3-0. moom nan lijjanti combat am ak ngeer bu mu lijjanti combat ak te moo loo diwoo. damaa diw quoi bi laa moo tax mooy ñàkk nii. ngeer nee na yow nga régler sa combat ak moom te bañ a ci beneen combat ndax nee na problème yaa ko ngeen yeggee ca combat ba. na laa amee problème. non non da koy laaj ci non la amee problème quoi. maanaam bëre bi ngay wax bi ñuy wax ci yow da ngaa mën a bëre ak yooyu. non Nguer champion la Babacar ñi di ñoo xeb Nguer man maay man Franc xebuma Nguer ku jël tournoi du souvenir man sama àdduna amaguma tournoi boobu noonu du souvenir amaguma ko comprendre nga kooku champion la gars yi ñooy naan ay Nguer lii lii mais man dama jàmm dama am combat te xale laa combat bi nag sama wax waxu ci bëri xam lu ci war a bëri jëf moo ci war a bëri ma dem sama yoon quoi. kon daal yomb bu yomb. non du yomb ñun moom bu la xasee ba ñeme nga jël avance yomb am na fu mu ko teg tamit moo tax mu jël avance ñëpp bu la fee bawee mu jël ko xam nga am na fu mu ko teg moo tax. kontaan ci xam nga di bëggee ki ma àndal suma grand Mara sëñ Saliou xam nga naa daal ci ñoom di woo combat bi dama ci bëgg André Senghor King Family ngeen ñëw jàpp ci ak grand xalifa Sankare Amadou Diop Fall borom Espagne. sama coach jambon maa ngi koy nuyu jambon ku baax la quoi ku baax la maa ngi koy bu baax. ñu bëggee Farouz. waaye maa lay fay Babacar. Farouz ku muy bëreel sax. waaw yow da nga laa xalaat war a bëreel man. waxal kan mooy sa adversaire. sama adversaire man ñëpp sama adversaire ñëpp sama adversaire lan. képp kuy takk ngemb ki ngay bëreel la wax ci ne bi du daangu ngay bëreel wala da nga koo ragal a tudd ak loo ciy woy bañ koo tudd non dama sa adversaire man kay ñëpp sama adversaire la loxo gos ba daa dis da la gars yi wax sëñ Fallou yàlla baax yàlla bëri sutura hmm. waaw xeexam moom dëgg man su ma amee lu ma ciy ragal bàyyi bëre ragaluma ci lenn ci lamb yi la lambam la lamb yi laa wax ci lamb ji ragaluma ci dara kon seen combat su ma la déggee day yomb ci yow no mënul yomb ci man jàmbaar la may jàmbaar ñu boole ñu amateur daal bu leen recevoir nan ñëw dëggal suñu bopp mu dëggal ba mu dëggal sama bopp mhm. waaw ngeen defante waaw ñu defante fa yàggal amateur bu soob yàlla mhm. incha allah kontaan ci yow ñaan ndam rek waaw mais ñu ngi siyaar baa mbaa yaa ngi sant yàlla wér wér alhamdulilah sa waay laaj naa ko léegi moom Farouz maanaam amut lu muy moytu ci yow la ma wax amul waaw waaw man loolu laa bëgg man xam nga dama bëgg affaire yu métti dama koy ñaanal wér rek na liggéey lu metti ma ñaanal ko wér ba jour yi yàlla may ma wér may may ko wér li si des après arbitre daal mooy mooy mooy xalaat ngeen xeex yéen ñaar. waaw mais bëre dóor lañ wax mën na jeexee fu ne mën na jeexee si dóor mën na jeexee si bëre yee man moom yëpp laay liggéey yee. am na ñoo xam ne dañuy wax ne doomu dàngu bëre yëpp li ci yëpp xeex la. waaw ah, mais bëre dóor lañ signé non dafa am licence avec frappe ak lutte sans frappe man jënduma licence simple lutte laa jënd. donc mu jeexee rek baax na. am na looy moytu ci Farouz. Farouz non aw ma dara lu may moytu su wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla su ma amee dara lu may xalaat ci Farouz wala lu may moytu kon ma bàyyi làmb aw ma dara dara lu may moytu ci Farouz. da ngay brûler bi. ñaanu ma yalwaanu ma damay tubb par force xam wax ji daa bari bu at na taxaw dëggal boppam. fu mu fu mu taxaw dinaa ko fekk parce que man loolu lañ ma yaree fii la ëppee mais ñu. waaw ziar nañ la. bëgg naa la. caayam. dab daan caatu yaraax. nga jóge ci nga jóge ci victoire. jëmaat ci beneen combat nooy demee ci combat bi sa digganteeg caatu yaraax. waaw sant yàlla bu baax julli si yoonent bi sant jam ñaajo yëpp. waaw di ñaan yàlla xam nga yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm maa ñu ndam ci kàttan yàlla. ndam li mën naa yomb. waaw sans départ rek xam nga lu ñu yàlla may rek ñu jël mais daal xam nga yàlla nañu yàlla defal ndam. ah ndam daan lu tax buy ñëw ci làmb simple. moom loolu rek moo fi ne. parce que làmb tamit xam nga nekkul yëfu dof xam nga nit la xam nga benn cinq minutes la wala benn vingt minutes wala benn dix minutes rek mu jeex quoi bu jeexee jeex na wa waaw incha allah ñoo far. waaw Babacar. maa ngi si jàmm a baax baal maa ci gi. baal naa la baal. waaw kan ngay bëreel yow. dab daan sa ginnaaw ah dab daan. waaw. Thiatou Yarakh ah, daan le 3 mars bi passé spécial combat sëñ Modou Niang waaw. ki ngay bëreel loo ki may bëre yàlla may ko jàmm may ma jàmm ba bis ba mu nekk en forme dara du ko jot dara du ko jàpp mu ñëw ci kàttanu suñu borom ma daan ko jël bu rëy mu ñibbiwaat jàmm ñaa jox ma leen di jégalu tamit ñoom bu ma leen daanee daal waaw. waaw waaw waaw. kontaan ci yow waaw kontaan ci yow. nu ki borom reefan. waaw dafa leer dafa leer. ci loo ne. sant bu baax. julli si yonent bi sant sama ñaari waajur bu baax waa dañ na ñu toog ci salle bi a ah bugaan borom sentif borom bugaan borom géej waay non fi a pas de maladie bugaan nga dani waaw ñu ngi sant yàlla non non film non femme a pas de maladie rajaxe est-ce que femme nag du ci bokk nag non non non dégguma la pour soxna non ah soxna nga wax mais soxna bokk tak soxna nga wax soxna non fii non femme y a pas bugaan ku muy sax du buus George Bush George Bush. Ah, men. waaw en député. kooku yi balam bëri na de. waaw mais ñun ñooy Bougane Gueye Dany dawuñu xale barke Serigne Touba ñun Guédiawaye lañ dëkk. waaw te Guédiawaye ku fa dëkk xam na fa la Balla Gaye 2 ma dëkk te Balla Gaye 2 fu mu dëkk coono dugg dëkk na maam Seera Fall ñun ragaluñ dara kii mooy suñu entraîneur grand Gora Mbaye. wër na maam Seera Fall yow boo ñu xoolee xam nañ. mooy sama Malick Gakou. waaw kii mooy sama entraîneur sama Malick Gakou sama lépp ndax kii moo may yóbbu di di ma def loolu lu nekk di ma bëgg doon ma denk champion dama bëgg man tey dama bëgg tey roi des arènes bu dugaatee géej bu ko Balla Gaye dugaatee géej waay deuxième fois maa ngi fay dugalaat waaw man loolu mooy sama ambition mooy sama gëm-gëm bëgg naa si yow. barke nee na y a pas de femme non de film et de nangam nangam maanaam day expulsé sa kaw. Ah, ñun moom lépp la ñuy def moom. waaw. ñu xam waaw lépp la ñuy def moom. waaw ah, suñu ménagère non moom moom garaawul comme moom nee na du wax moom. ah def may bàyyi ak wax ji. waaw yàlla baax na daal mais bu suur ba moom. fu ñu taxaw fu mu taxaw ñu fekk ko foofu jëlee ko foofu. fu mu taxaw ma fek ko foofu. waaw loolu lay demee. maa ngi Boña. loo koy wax. Boña. waaw ah, di mu góorgóorlu rek te xam ne mu may ma ko may dara te lu mu la may gën waaw si ci yow. waaw. ok Babacar. di kontaan ma la. da ngay bëri ci journée bi. waaw Malika yëpp. di woo waa Malika cet ba cet di leen wax ñu ñëw jàpp si combat bi di woo ku si mel ni Mor Kebe Mor Gambie Cheikh Cargo di woo Ablaye Diop di woo baaba di woo Modiaw Tafa xam nga di woo gaay di woo sama ñu bu ñu waree def danañu def bu ñu waree wax Sénégal jëm kanam jeex na wasal mais ci loo ne li ma nekk wax naa la ko naka koor gi yàlla rek jaamu yàlla rek baal ñu àq yàlla nañu yàlla boole baal ñun ñëpp ah, tey ji ah, woote fii ñëpp teew cadre bi rafet macha allah mu jël drapeau tudde ko du jànjee ko président des amateurs loo ciy wax en tant que président des promoteurs. li ma ciy wax mooy justifier suma présence fii. Euh, Fallou day kenn ci ñun ci association wu promoteurs yi euh, muy xale bu yaru ku am jom ku am fulla am fayda xew la tey wooñu du ñu def lu dul daal di ñëw teew ci koor la ñu kenn ñëpp xam nañ ne xat na mais yiwoom euh, ak taxawaayam tax na bu wootee promoteur yëpp dañuy bàyyi lépp daal di ñëw teew ñu pare parewaat mu tuddee ko alaaji Doudou Diagne ko kuy wax làmb waxul yéen communicateurs yi yëpp parce que yéen i toog alaaji Jaw a ngi nii sama seexu màkk mu ngi nii toog kon ñii caaxaan njëkkatiwu leen dama la koy wax waaye jarul nga koy puus yow li nga bëgg a laaj laaj ko ma tontu la maay Abdou bul sonn li am solo ba am solo moom mooy ki ko organisé këñ ko tuddee ak ñi koy bëri ñëpp ay ndaanaan lañu moo tax képp kuy ndaanaan teew na ci bés bi jox ko moom mu laaj li mu sox Lamine da ngay laaj. ci Ama tollootuma ci fenn maa ngi toog sama kër tegale sama ay tànk dem ca sama liggéey ba ma nekkoon. tollootoo ci fen mooy lan. làmb tëj na. mais déwén du am. déwén déwén la nañ ñaan yàlla fekkee ko rek. da ngaa génn ci combat bi yow wala da nga koo bëggatul a tëgg wala. non bëgg naa ko tëgg waaye diggante bi moom kenn mënu fi tëgg. pour yàlla baax na nañ muñ ba saison prochaine. yaa nga ci la nga newoon ba tey kon. Euh, bu yoon jeexul waaxu si du jeex. kon président ci benn surne rek la fas yéenee yem. moom la yàlla dogal. doo fi tëggaat dara. xalaatuma ko yaakaaruma ko. mbër yi nar a def année balance ñoom Gris Bordeaux ay Tapha Tine Ama Baldé Bombardier wërsëgu jaam. yàlla est-ce que làmb ngi dox président Lamine nee na ndax làmb ngi dox. ah dafa nga ni ñii ay caaxaan yëkkati leen li ci mën a dox kañ ciy dox lépp mën ta dox rek yàlla sax mayewul lépp bis bu nekk am ñu kontaan am ñoo xam ni ñu ngi toog di ñaan yàlla ba léegi te naan ndax dañ maa fàtte. mu mel ni promoteur yi gis naa ne bu korite gi passé seen yaram tàng na gis naa saam gis naa Jam gis naa moor Mbaye Assane Ndiaye Fallou ñoom ñëpp lig Nicolas kenn desul sëñ du ñaa ay journée yu doy waar. ma yi di nga gis ñeneen. ba ci Baye Ndiaye di gis ñeneen. léegi na ci loolu nga sukkandi ci naan ay ndax làmba ngi dox. damay laaj non moo tax man la yow ndax seen laaj bi am na solo. amul solo kon. ah seetal rek. waaye président kay Lamine passé na foofu. waaw yéen a ma dàq. <laughs> Tafaatine Ama Baldé amateur yi bëgg nañ ko. dara nañ ñaan yàlla yobu ñu ci jàmm ak salaam ba déwén lu mën a nekk danañ ko ci dóor. mais doo ci def yëfu ndewrul taxawal ko léegi rek. déet booy bàyyi ma rek bu ma sorxo sorxo dañoo woor dañoo ñëwoon fii ci Fallou Ndiaye ak Doudou Diagne Diecko si leen. ndewru du kay man naa jaar ci suuf. booy doo ma wax loo de yow booy bu garaaw nga yàgg la gisoo sous-marin baa nga ne la ca gànnaaw. di Oh, Talla Ndiaye. Doudou Diagne nag làmb moom kenn du ko laajte li ñuy wax kay mooy làmb léegi dañ ko gis mu gën a professionnel ci waxtaanukaay yeeg yëpp du sax am policier loolu lu ngeen ci liggéey ba loolu man a am. waaw sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi lay baalu ak di baalu ak képp kuy seetaan euh, Leewtoo di baalu ak amateur yi képp ku bëgg a làmb di ñaan yàlla may ñu kooru jàmm koor bu ànd ak wér ak gudd fan. maa ngi nuyu jaww mi nga xam ne sama xarit la sama porte parole di nit ku baax ku sonn si làmb bëgg géejawaay maa ngi koy nuyu di ko ziyaare alaaji jaw alaaji jaw Alioune moom alaaji la kenn du ko yàqal daw na safaak marwa sànni na jamra ñu ñaan yàlla dolli ko muy nit ku baax di nuyu Pape Abdou Fall président des promoteurs ak promoteurs yëpp di nuyu amateurs yi ñu ngi si gannaaw ñoom euh, Ngati Sey ñoom Ngati Sey ñoom Diène Diène Diouf premier vice président Saliou juuf bi yor lutte avec frappe euh, lutte sans frappe yaa ngi dégg ñoom ñëpp ñëw nañu ak mbay ak Diouf ñoom ñëpp ñu ngi si gannaaw maa ngi leen di gërëm di leen sant ak Yaafa Diallo bon ñëpp ñëw nañu pour ànd ak ñun tey si bës bi parce que kii drapeau bi du drapeau du jànje ko drapeau amateur yëpp képp ku bëgg a làmb rek sa drapeau la. waaw ñuy ñaan euh, daal ñu dugg si bisimilah jël si am di félicité Fallou Ndiaye ak promoteur yëpp parce que vraiment ñu ngi góorgóorlu tëgg làmb pour rek euh, amateur yi bëgg làmb metti na mais terewul ñoom ñu ngi wut seen i moyens di tëgg làmb pour rek euh, Sénégal bëgg amateur yi bëgg donc loolu donc kontaan nañ maa ngi lay fay. tey yaakaar naa ku wax jaw sax duñ ko taftaleeg mbër mi dañ naan làmbi réew am na loo ci suwe tey làmb bu yokk ñuy gis mu yokk ci cadre yu mel nii mbër yi daje coow du fa am comme li ma laaj président léegi yow en tant que kilifa ci làmb wala kilifa ci réew mi loolu lu ci tonton jaw di dolli bi ma sant suma ñaari waajur di gërëm Serigne Babacar Sy di wax ni tey bég naa trop wóolu loolu yow toogal ndax su mbégte mooy def dara comme que bu ma jël la kay réew mi amul lu ëpp làmb toogal làmb nag ñett ñoo ko composé mbër promoteur ak supporter amateuru làmb président du jànjee ko ku ne xam ne sama diggante ak moom joxoon nañ ko làmb ji mu di ko doxal ba benn jamono mu tekki ndomb tànkam jox ko Cheikh Sarr Cheikh Sarr def ci li mu mën yëpp ñun amateurs yi ñoo dellu woowaat Doudou Diagne pour mu jiite ñu mais avant tout gërëm fàllu Ndiaye bu baax di gërëm Doudou Diagne di gërëm Pape Dou di gërëm mbër yi di gërëm amateurs yi di gërëm promoteur bi nga xam ni moo tëgg bis bi. di gërëm sama soxna Aji Fall ndax ñoo ànd tey ci bis bi c'est la première tey mu ñëw ci signature contrat ndax yàlla dogal na jëkkëram day yëngu ci wàllu làmb may wax rek ni bis boobu nun amateurs yi dinañu feesal làmb ji ndax du jànjeekoo liggéey na ci làmb lu tax bu bis baa ñun ñëpp dinañu takku ànd ak moom jàppale ko ci bis bi ba promoteur bi gis ci boppam promoteur bi nag yàgg naa def lii Galaas ñu gis tey cadre bu mel ni lamb di ko dund yow loo ciy wax ci loolu. waaw ah, sant yàlla rek jul ci yonent eh, wax ne tey da làmb dafa tolla koo xam dañ ko war a ne dañu war a conscientiser mbër yi conscientiser seeni supporters ndax foofu la Sénégal toll parce que ñëpp ngi jooy violence bi parce que violence bi phénomène social la boo xamante dañu obligé jéem defaat ay effort yëngatuwaat conscientiser nit ñi moo tax rek ñu jéem fee teew pour li na sares ka ñu gis suñu image seen xel dem ci ne ah waa groupe baax ñu ngi nii pour euh, lutter contre la violence ñu ñëwaat sensibiliser waat mbër yi rek di leen waxaat ñu ànd euh, euh, ak dal ànd ak yar ndax foofu la loolu la Sénégal laaj sëñ Samba Ndour mu Touba sëñ Samba Ndour sax mu Sénégal sëñ bi ñu ngi lay ziar ngi lay fay bu baax a baax a baax di la siyaar di nuyu di nuyu mboolem kofto yëpp di nuyu Fallou Ndiaye mboolem ku leen di déglu wala mu leen di seetaan kontaan naa baax daal. tey Fallou Ndiaye tudd na drapeau sëñ Samba Ndour lu ko lii ak Fallou Ndiaye rawatina waa làmb sax wax. waaw sëñ Fallou li ma ci wax léegi rek jikkoy sëñ Fallou jaa ko ndax sëñ Fallou dana woon xam fàtte dégg fàtte ak fecc wor ma ak fakk jëf bañ koy bind taxuma jikko yooyu moo nekk ci moom ba tax moo tax Fallou Ndiaye xeebul kenn dafa fonk nitam ku respecté nit la Fallou Ndiaye mën a sonn ci nit la Fallou lu mu nekk maa nga ca Fallou sama xarit la Fallou man ak moom sama diggante ak moom ndox yi fi yàlla bu tuuru ci biir géej ku ko mënut a séparé sama diggante ak moom du ma sa jeex. kon daal yaa ngi woo ñëpp rek. maa ngi woo ñëpp champion yooyu yëpp maa ngi woo ñëpp ñëpp ngi waaj pour ñëw te incha allahu rabi dana xam ne lebal na ku jara lebal nañ dem ba ca kanam ñu lépp dina leer incha allah kontaan ci yow euh, si ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. ba yaa ngi am jàmm. sant sant bu wér. tur bi nan la. Ndeye Ndiaye madame Fall. Fallou Ndiaye pare ne la làmb en tant que soxna looy wax Fallou ak mbër yi bëri sa drapeau. waaw di ko sant di ko gërëm mais làmb ji da ko pare ne parti politique bu ñu naan RCD rassemblement citoyen pour le développement secrétaire général bi di Ibrahima Diawondo Bari président conseil départemental bu Vélingara receveur des domaines bu Rufisque kooku la kooku mooy mooy kilifa parti bi je la comme la présidente nationale des femmes kontaan ci rek ak di sant Fallou di ko remercier ci comme euh, li mu ci sunu choix bi mu def ci ñun ko gërëm di ko sant di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu seeg jàmm ak salaam. kontaan ci ñoo gën kontaan ñoo gën a kontaan. nan la Abdou Sène nga représenté fii Dieye seen ànd soxnaam looy wax Fallou Ndiaye. waaw Fallou moom sun xarit la sunu nijaay la sunu lépp la ndax mën nañu Fallou ak Dieye benn lañ waaw dañu koy ñaanal rek li muy séntu ci journée bi mu am ko lépp ñu koy njortam waaw ñu koy ñaanal lu baax a baax sunu. ñun ñoo bokk fu ñuy liggéeye man na ne place yu Dieye ak place yu Fallou benn la lu mu xew la lu man damay woo ma dem Fallou lu ne laa am ci moom waaw léegi rek ñoo ngi koy wax Dieye mu naan ndax dem na ne ko waaw mais maa ngi ñaanal jabaram di nuyu corom yi ñu àndal suñu secrétaire di ko ñaanal Fallou journée bi li mu ci séntu lépp mu am ko ci ndax ñun moom li ñu am mooy làmb Dieye bu fi nekkul ñun ñoo fi nekk te mel na ni ñun fi mu toll ni Dieye mu ngi fi journée Dieye ñun nga fiy gis bañ na ko ba journée bi passé sax toogul plateau man mi maa dem di jarbaatam di léppam lépp lu muy yóotu lu ne man maa ne ca kanam man ak lamb waaw ñun ñoo ñooy doxal lépp ñu ngay ñaanal bu baax Babacar. baax a baax incha lu mu ci lamb. waaw gaara gaara ci lamb la bokk ci lamb la bokk man bon bokk euh, mënoo mënoo dëkk Guèye waaye dëkk Sam dëkk ci mën nañ ne Balla Gaye di entraîné jàngee ba bi ngay xale ba bi ngay màgg te doo bokk ci lamb bu dul nekk ci lamb ji laa bokk. tey lu waral teewaay bi fii. waaw teewaay bi nag dafa am ñaari cër ci am muy Fallou Ndiaye mu bokkal koñ di sama grand en fait yàgg ñu taxawu tamit ak drapeau bi nga xamante ni tuddee Samb Ndour moom tamit mu di sama mag di sama sëriñ tamit waaw tey donc ñaari taxawaay yooyu noonu laa am ci làmb yi muy benn bi Fallou Ndiaye bi nga xam sama grand frère ak ki nga xamante ne mooy Samb Ndour mu am drapeau ma bàyyi lépp lu ma jàppoon ñëw gunge ko bu ñu taxaw Fallou Ndiaye am na mbër. <laughs> waaye ah, loolu ngay laaj <laughs> waaye aywaal rek. <laughs> sa mbër Balla Gaye ah mais xam nga loolu. Balla Gaye <laughs> samay xarit lañ mais Balla Gaye mooy sa mbër ah nëbbuma loolu.